tey newuñu fi ñun bu ñu fi dekkee tey suba ñeneen dañuy ñëw loolu kese la. yee mooy loolu. Uh-huh. Papa Mbaye Dieye Faye aussi day king ambiance ngay king ambiance macha allah yéen ñëpp ngeen nekk ay ndaanaan muy sa papa nga yàgg ko bëggee moom mu yàgg wax lu baax si yow mais yow ak Papa Mbaye Dieye Faye seen featuring dafa war a am. loolu day neex. ma ne déggoo ba daal sigil ma lay seen rek tuuti gelaw ci yow yow xaaral lekk nga déglu Mbaye Dieye sama père la waaw ah, gis nga grand théâtre ma som laa ubbee te loolu sax dinaa ko dugal songu ma. ndax man morsom boobu moom gën a neex si ay morsom ñu balance ko sànq loolu lañ koy laal parce que moom moom moom moo njëkk moom moo njëkk jëndal cunkoo sama père la dama koy ñaanal jàmm chéri Mame Ndiaye sama yaay ji ak ah mooy baayu Caane Fay sama yaay Caane chéri Abou Gueye baayu Fallou Fay baayu baayu Kiné Caane Fay nag sama yaay maa ngi lay bégee bu baax maa ngi lay siyaar bu baax Caane je t'aime je t'aime je t'aime <laughs> c'est le moment ñu dem jëli yan témoignage la ñuy def ci Bass Thioung artiste bi dellu si waat sur le plateau mën naa ne ànd nañ ànd bu dëgg ànd bu sincère mhm. ah mu doon sama papa nag taxaw ma fu ne mhm. ah ànd ak man fu ne mhm. ah ma dara nag wër na yàlla lu mu lu mu lu mu am nag bokk ak nit ñi moom nit ñee ko gën lépp lu mu am ak ay fansam lu mu am rek bokk na ak fan yeeg nit ñi billaay nekk na nit koo xamante ne tamit ku defenaa la ak ñeneen ndax moom liggéey rek ak tëju yoonam nekkul ci leneen bas parce ah, que c'est parce que c'est un frère ba nit ku baax la ku jot ku jar a jàppale la lépp lu ñu def ci moom rek c'est normal dañ ko war a def def ko donc c'est quelqu'un boo xamante ne da ko musique sénégalaise bàyyi xel bu baax il a l'ambition et puis mi ngi góorgóorlu ci li ko war te juddu ba nekk fa mais tamit da koo war mu def ko daal nest pas ñii comprendre ñi xam ne lu muy musique c'est différent par rapport au autres du concurrence du def dara lépp lu muy def rek daf koy def pour filimu boppam musique bi muy def c'est différent avec les autres musiques donc jàmbaar la ko ñun moom moom xam na xam nañ. waaw mais xam nga saa moom moom moom moom moom mooy mooy mooy grossiste bi moom mooy grossiste bi ci gars yi. Ibou Cissé borom New Fashion doomu Pikine maa ngi koy ñaanal tawféex sama waa ji kenn du yow. sama mag Zé Maria Sibéru fay ba su VIP petit sama doom sama jabar maa ngi koy sant vase maa ngi tamit xam nga di bëggee HLM bu baax HLM dañoo baax HLM dañu mën bës dañoo mën seen nit aw ma seen fay nuñ ma def keroog grand théâtre sama yaram daa daw yàlla na leen yàlla defal jàmm HLM mooy sama xol HLM mooy sama base doomu HLM la 100 pour 100 booy HLM. donc émission bi jeex na tàkk ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñi lay seetaan euh, euh, et euh, nga wax leen sa waaw di ñaan ah jàmm ci réew mi ah, ndax mooy li ma la wax rek lu dul jàmm jàmm wax a gën te ku ne la nga yor nang si doylu waaye xam nga ndax borom karaw wu ñuul ñaaxul dara te adduna bi ku nekk ak sa tuur ku nekk ak sa wërsëg ndax yàlla buy ñëw nag du tàggoo te wërsëg bu dee ñëw dara du ko téye kon nag nañ féexal xol yi rek xam ne ku ne boo ayee <laughs> wol sa moome waaw. merci ah, euh, euh, euh, bu baax a baax di leen jaajëfal ci seen fidélité au programme de Leral TV canal 33 de la TNT merci à toutes et à maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal également Momar Prince bu Subatel Musique Matar Diop Subatel merci beaucoup à vous un vrai leader